جلسوا إبرا وتفهيما أبكي على خليل إبراهيم مدى الرجال أسمى قديما جنبا جاي مام سرنا إبراهيم ويرنجي جاي ليلا بدا بيما تمامات نويرو كرو جاي نانا في نون كرو نتوب سومنا ma joysisa ndaamala sañcam daaru ca alsasin cay yàlla maa ka waaru waroo ci naa waaru garaw ga woon mi mbiroy ne leen waaw ay nanoo xaali xalilullaahi way jala leen masaa najaay lillaahi ay ma laa fardi xalilillahi imaam Cerno Ibrahima baabullahi ayn ala xutbul waraasin jaa'i xalifatil xadimi doonallahi ayn ala xarmi rijaalillahi seyxi siyuuxi qaa'idil ilaahi wayman wayman mi ko ñaanal wirdu def ko fu muy jëleeti fardu mooma mayen fa daaru Abdul Xaadir ci darajaay sëriñ ba Abdul Xaadir dellu ma may musabbiqatul asri dellu ma may maqus waxtal asri saadatal radal bi duuna suxti mooma ko warulan fa daarul muxti ma jooy la see ahmadu awa balla baayam ba foo ko woon ca kër balla ma jooy la see muhammadul abibu baayam ba moo appal njëriñ am ceebo wayaa xalilullahi way saandaama la getti wan góor ña defum ndajaama wallaay saarongo ñi war naa tuuru ma jooyo jooy ba sama gëdi saaru gi lax na saa xol bi wow na saa cëri la ginal na cernu dem na billaahi wallaahi dëgal tallaahi duutuma raaba keku duuna laahi naama xalilullaahi ibrahima war ngeen yow jar na kayimu garab gu nay ga kerol waa daa nee na jirim naaj waa nga nit ñey jaaru imaanu diinuna aqul imaani wasaa'ibul islaami wa lisaani cernoy kenul diine di roog lislaam moo jëkk moo mujj te moo fi xam daam kenul la yar mbaarum sëriñ ba naay na léejël ya gal ya daanu aay maam cerno dem na yóbbu far daam sëriñ mamar ab sañu ngi nu yoog daam kenn dootul xam la alxuraan ci mbàkke ku mel ni seex abdu maram waa kokki way man a way man express ba teer na te taxuma àgg te wàcc teer na gileeg saxaar te di machine bëggéy naa maam teer na mécanicien bëggéy na xoma saxaar gu may dugal bagaasi bawul ba si ñooy borom bagaari pake ba dem na toppi manduwaar ga maam cer na dem na fekki bamba cam ku mën a fey ne fey subbuun loo co yow loo ci doon ca tefes ngay ku mën a fey ne fey subbuun loo co yow loo ci doon ca tefes ngay way man way fu ma ne woon ba Seex Mustafaa bu sa paas bi perdi man nga xalifatu di xayrul fardi yaay doomi Ahmadul Mbakki yu am di bulu ko nag Ababakar Sadiqo ginnaaw Rasulullahi kon nuyu bulu ko nag xalifa Amdil Mustafa kon tey nu gën faa jooy Xadimul Mustafa ma jooy la Amdi Mustafa baayam ba ko jàngaloon te def danuy baayam ba fu muy baay bu mel ni Cerno mu di ko xoole Bamba ci bi xarnu fu muy jëleeti kuy roog maam Cerno mu doon premier rijaali xarnu moo jëkk daw kursu ba mujja ak moom ba gañaa yafaxa bul làgg raw na te yëpp te tuur ba ñibbi këram njool ma kawan ko ba alaxira jeexal kër ma balla Cheikh Moustapha amul ku dul Cheikh Balla Cheikh Bamba dem ca sasin fa njurbel këral la addunay nu rokku urmbal Cheikh Anta dem ca boppa ma sasasin yóbbu sëriñ afiya murid yey bis bisi sëriñ Masamba dem ci atum unay sasin yu may tuuba di ko jooy di bis bis fekkoon na seex keroog rakam seex absa dem nañ ca amana sa din cey cam sa murid yépp nag nda ndaw mu toofi ba ma tal bi xarnu ndekete woo day dem ci atum ba sa xam naa su doonam ñangoor ma ngay dasa sasi watit walaa leen di bëgga woon ak mboor ma ku dox doxin wa daa di e ma ngolaal ma ma ca ga fekki leen ko dooma di bàyyi wa toppi leen ko marsiya de xamal watit wa njàmmee ngi diiti sulli mbootu wa ndax ku xamul saayir na toppi membaar xawan balaa neex nga dégg séeréer sëriñ ma sàmba nee na inspecteur la kuréer a na tey ma conséguer maam Cerno wàcc na defar na diine ñibbi na ajjana ca óorel na iinu maam Cerno na ba fab sëriñ daam sëriñ ma mar ab sa ñu daam jigéenul óore ay yaa koy teeru lalam ñu ñu mbar sàq ciy feeru ma bu naana ci lalam di buuru jot na ca bisu peyor ba di tulliir bamba takkal na ko médayi baatin yu dul tekkeeku la daa borom kun yëngal na firdawsi la maaja tuuba taxaw fa jàllaatu nay mi booba jàllaatu addin am na fay ridwaani nuyoo na fa ak baccak borom gaawaani maam ceer na nax nanu ba dem jinaani ma def ko seeti la daan jiraani fukki fan ak juróom la xëy di buuru ñu naa bayit bayit mu daadi muuru ñetti fan ak ñeent weeru soobaan di alxames la ne mes réew soodaan am na juróom ñetti fukk ak yu manki yenenti weer laaj naa ko si di mbakki ku bëgg a fa mu dox ci saayir na ma jox sam nopp kon nga saagar